nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub li ko dale ci sunu njàng mu jëkk ba fii tey nu ngi doon jàng ci yàlla ak yoonam bu jub bi gisoon nanu aadama ak awa kayin ak abel set ak enok nooyin ak nit yi jamonoom ak nimrod ak sororu babel ñu néew ci sunuy maam ñoo jaar ci yoonu njub yàlla tëral lu ëpp ci ñoom dañu tànnoon topp seytaane ak yoonam bu jubadi tey jii nag agsi nanu ci nettalib koo xam ne turam siiw na lool ci kàddug yàlla te amoon palaas bu am maana ci pexem yàlla ngir jot doomu aadama nit kooko ngi tuddoon xaritu yàlla ak baayu ñépp ñi ndax xam nga ku mu doon moo yonent yàlla ibrahima mbind mu sell wax na lu bare ci moom turam feeñ na ci mbind yonent yi lu ëpp ñetti téeméeri yoon kon nag bu soobee yàlla tey jii ak ci njàng yi di ñëw dinanu gëstu ba xam li mbind mi xamle ci ki ñuy woowe xaritu yàlla tey nag fas nanu yéene gëstu ci ndoortel nettalib ibrahima ba gis ni ko yàlla woowe ak lu tax mu woo ko bala nuy tàmbali war ngeen a xam ne ci bu jëkk ibrahima tuddul woon ibrahima waaye abraham la tuddoon fileeg ñaari njàng dinanu gis lu tax yàlla soppi turu abraham mu nekk ibrahima wante tey nanu denc ci sunu xel ne maa ngi jëkkoon a tudd abraham ci saar fukk ak benn ci téereb njaal benn ga danu ci gis ne abraham ci askanu sem la bokk ndax fàttaliku ngeen sem kam ak yafet ñooy ñetti doomi nooyin ya ci diggante sem ak abram amoon na fukki giir baayu abram mu ngi tuddoon tera mbind mi nee na tera moo jur abram nakor ak xaran te xaran moo jur loot loot doomu magu abram la woon baayu loot dafa faatu woon jabar abraham moom mu ngi tuddoon sarayi yi nag mënul woon a am doom jurul woon jenn sax abraham ak yi ñoo bokkoon baay waaye bokkuñu woon yaay abraham ma nga dëkkoon cib dëkk bu ñuy wax uur ci réewum kalde mi ñuy wax tey iraq dëkku abraham sorewul woon fa nemrod doon fexe tabax dëkku babel ak sororam bu kawe fekk booba waa réew ay xërëmkat lañu woon baayu abram xamul woon yàlla aji wóor ji te noonu abram moom itam xamul woon yàlla ci biir lëndëmu bàkkaar la juddoo woon ni doomi aadama yépp waaye mbind mi won nanu ne amoon na bés yàlla aji sax ji feeñu abram di wax ak moom war ngeen xam ne ca jamonoyu jëkk ya yàlla doon na wax léeg-léeg moom ci boppam ak nit ñi ndaxte amaguñu woon mbind yonent wante ci jamono jiinu nu tollu yàlla dafay wax ak nit ñi jaare ko ci mbind mu sell mi looloo tax soxlaatunu baat buy jibe asamaan mbaa peeñu mbaa malaaka ngir xam yoonu njub wi kuy gëstu ci mbind mu sell mi yaa ngi déglu baatu yàlla nanu déglu léegi li yàlla waxoon abram ci saar fukk fukk ñaar aaya benn mbind mi nee am bés aji sax ji ne abraham jógeel sa réew ci say mbokk ak ci sa kër te nga ñëw ci réew mi ma lay won ndax dégg ngeen li yàlla santoon abraham mu ne ko mu jóge kër baayam tàggoo ak i mbokkam génn réewam te dem toxu ci réew ma ko yàlla naroon a woon ci xalaatu nit li yàlla santoon abraham metti na lool wante yàlla dafa ko façon yéene barkeel lool nanu jàngaat léegi aaye bii ak ñaari aaye yi ci topp ba xam lu tax yàlla woo abraham mu taxu dem ci meneen réew aji sax ji ne abraham jógal sa réew ci say mbokk ak ci sa kër baay te nga ñëw ci réew mi ma lay won dinaa def yow xeet wu bees wu yaa di la barkeel te màggal saw tur te dinga nekk buntu barke ku la barkel ma barkeel ko ku la moolu ma alak ko te xeeti àddina yépp dinañu barkelu ci yow lu tax kon yàlla sant abraham mu toxu dem meneen réew lii moo tax yàlla fasoon na yéene def ci abraham xeet wu bees wu yonenti yàlla yi ak musalkatu àddina si nara soqi ko looloo taxoon yàlla dig abraham naan dinaa def ci yow xeet wu yaa te dinga nekk buntu barke te xeeti àddina yépp dinañu barkelu ci yow ndax dégg ngeen loolu dëggu ko am solo ngi nii yàlla tànnoon na abraham ngir mu nekk bàyyi maam ya nara indi ci àddina ramukat bi yàlla dige woon ramukat boobu dafa waroon a nekk musalkatu xeet yépp ngir képp ku ko gëm mucc ci nootaangeek bàkkaar seytaane ak safara noonu gis nanu ne bi yàlla de woo abram dafa doon jëme kanam pexeem ngir yónni musalkatu bàkkaarkat yi ci àddina abram moom ci boppam nekkul woon musalkatu àddina si waaye moo doon kiy nekki baayu xeet wi musalkat bi di wàcce kon nag loolu mooy li yàlla digoon abram ci kaw mu génn réewam dem ba fa yàlla wax lu ngeen ci xalaat ndax abraham déggaloon na yàlla nanu déglu li nu kàddug yàlla wax nee na noonu abraham dem nako ko aji sax ji waxe woon ba muy jóge karan booba abraham amoon na juróom ñaar fukki at ak juróom abraham jël ak moom jabaram saray ak loot doomu magam ak alal jamu dajale woon yépp ak jaam ya mu jënd ca karan ñu jóge fa jublu réewum kanaan lu taxoon abraham déggal yàlla ba dëddu kër baayam ak diineem leen rek a tax abraham dafa wóolu yàlla abraham xamul woon fan la jëm sax waaye gëmoon na kàddug yàlla mi ko toxul soo toxoo dinaa la barke lool abraham wóolu yàlla daldi gàddaay réewam naka ko aji sax ji waxe woon te yàlla ci takkuteem jiite na abraham ba réewum kanaan mi ñuy wax tey palestine walla israel noonu mbind mi ne ba ñu fa eggee abraham daldi jaar ci réew ma booba waa kanaan ñu nga woon ca réew ma naka noonu aji sax ji feeñu abraham ne ko réew mi dinaa ko jox ñi jóge ci yow kon yàlla mi dige woon def abraham muy baayu xeet wu bees léegi mu ngi ko doon dig it réew mu bees moom la yàlla bëgg wax bi mu feeñoo abraham di ko réew mii dinaa ko jox ñi jóge ci yow am nanu fii leneen lu raw xelum nit réew moomu doon kanaan waa dëkk baa nga ko feesoon naka la ko abraham ak askanam mënoon a moome nag abraham amoon na juróom ñaar fukki at ak juróom jabaram juróom benn fukki at ak juróom te amul jenn doom ndax ñaari màggat ñooñu dinañu am doom ak askan bu daj réew mépp naka la loolu mën a ame nanu fexe misaal di yàlla digoon ibrahim dafa mel ni su amoon màggat mu amul doom mu jóge réew mu sore gane ci Sénégal mu ñëw ak jabaram ju màggat ju mënatula ëmb sax bi mu fa agsee am ku ko wax ne benn bés dinga moom réewum Sénégal yow ak sa askan màggat moomu kon dina reetaan waaji te naan ko dangay caaxaan rek waay sama waay sama askan dina moom réew mi awma askan sax màggat laa te awma doom te sama jabar it mënatula am doom nga may wax naan sama askan dina law te moom Sénégal xanaa wéeruloo xëy na misaal mi xaw na doy waar wante ba tey loolu mooy li yàlla digoon Abraham moom mi màggat te amagul woon jenn doom am it jabar ju mënatula ëmb déglu leen li ko yàlla dig ci saar fukk ak ñett mu ne ko réew mi ngay gis mépp yow laa koy jox ak ñi jóge ci yow ba faaw dina leen barkeel ba ñu tollu ne peppi suuf si ku bëgg a wàññi saw askan na jëkk a peppi suuf si jógal wër réew mi ci ñenti xebla yépp ndax yow laa koy jox mbokk yi ñu déglu ndax yàlla defoon na li mu dige woon ndax def na xeet wu yaa ci abram ndax joxoon na askanam réewum palestine aha kay ci njàng yi di ñëw dinañu gis ne abraham mooy baayu xeetu yawut te ci moom lañu donne réew mi ñuy wax tey israel noonu mbind mi ne abraham nag gannaaw ba ko aji sax ji feeñoo mu daldi defar rendikaayu sarax ngir màggal ko ba mu ko defee mu joge fa jëm tund wi féete ci penkub dëkkub betel samp fa tàntam mu defar fa itam rendikaay ngir màggal aji sax ji daldi ko woo ci turam lan la abraham jëkk a def ba mu àggee ci réew mu bees mi ko yàlla digoon lii rendi woon na mala lakk ko ci rendikaay ba mu defaroon ni ko abel ak set ak enok ak nooyin defe woon abraham itam jébbaloon na yàlla ay saraxi deret lu tax sarax yooyu lan moo leen waral ndax te yàlla farul woon yoonam wi tëral ne bu deret tuuruwul mbaalug baakaar du am abraham ni doomu aadama yépp baakaarkat la woon wante yàlla mënoon na jéggal abraham ay baakaaram ndaxte gëmoon na yàlla ba indil ko deretu sarax si doon misaal ramukat bu sell bi naroon a ñëw ci àddina ngir dee ci palaasu baakaarkat yi sunu jot léegi mu jeex waaye li jàng tey lu am maanaa lool la te mata ko ndax xam ngeen léegi lu taxoon yàlla woo abraham mu dëddu këru baayam tox ci meneen réew waaw yàlla dafa façon yéene def ak abraham xeet wu bees wu naroon a nekk buntu barke ci xeeti àddina yépp li yàlla façon yéene def ak abraham dafa dëppook yéene ju rafet jamu yëgle woon ca toolu ajana keroog ba sunuy maam aadama ak awa baakaare ndax fàttaliku ngeen ni yàlla dige woon ki naroon a gane àddina ngir goreel doomu aadama ci dooley bàkkaar ak seytaane ñaari junni at gannaaw aadama ci jamonoy abraham gis nanu ne yàlla fàttewul li mu dige woon gis nanu tey yàlla ci takkuteem ni mu woowe abraham ngir mu nekk baayu xeet wi musalkat boobu nara ganesee àddina looloo taxoon yàlla dig abraham ne ko dina def ci yow xeet wu yaa di la barkeel te màggal saw tur te dinga nekk buntu barke ku la teral ma teral ko ku la moolu ma alak ko te xeeti àddina yépp ñu barkeelu ci yow ndax jàpp ngeen bu baax seen njàngum tey may leen nu sànni leen ñaari laaj yu tënk li ñu jàng tey laaj bu njëkk bi mooy lu tax yàlla sant abraham mu taxu dem ci meneen réew lii moo ko waral yàlla dafa façon yéene def ci abraham xeet wu bees ñaareelu laaj bi lu tax nag yàlla bëggoon a def ak abraham xeet wu bees ndaxte ci xeet woowu la yàlla façon yéene jaarale yonent yi ak ci mujj ga ramukat bu sell bi moom ci boppam noonu ci tënk gis nanu ne bi yàlla de woo abraham ngir mu topp ko dafa doon jëme kanam pexeem ngir wàcce ci àddina musalkatu bàkkaarkat yi kon nag mbokk yi fii lanu yem tey ci njàng mi di ñaw ndegam neex na yàlla dinanu gëstu ci nettale bu doy waar ci lu jëm ci abraham ak lot su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey wala su fekkee itam ne ay téere ci mbind mu sell mi ñoo la soxal nanga nu bind nu yónnee la ay téere sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 saint yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen denc ci seen xel li yàlla digoon Abraham naan dinaa def ci yow xeetu wu yaa di nekk buntu barke te àddina yépp dinañu barkeelu ci yow